waaw waaw ndax su ko defee kii bi gën ko mën a jàpp. ma ne xasida la boo xam ne maa ngi ko tuddee. mu ne xasida la boo xam ne mu ngi ko tuddee. raqadul xay say ni. raqadul xay say ni. fi hayaati yi daaray ni. fi hayaati yi daaray ni. maanaam naat ak ñaari dund yi. maanaam naat ak ñaari dund yi. ci dundam ñaari kër yi. ci dundam ñaari kër yi. waaw maanaam liñ ci ñaan. maanaam liñ ci ñaan. su ko sama borom nangoo. su ko sama borom nangoo. te yal na ko nangu. te yal na ko nangu. te loolu moom la ñu war da jàpp. te loolu moom la ñu war da jàpp. booy ñaan da ngay jàpp ne yàlla dana ko nangu. booy ñaan da ngay jàpp ne yàlla dana ko nangu. ud'ullaaha muuqiniina bil ijaabati. ud'ullaaha muuqiniina bil ijaabati. day ñaan yàlla te xóolu ne yàlla dafa dafa leen dana leen xëyu. da leen da leen ñaan yàlla te xóolu ne yàlla dana leen xëyu. mu tuddee ko nag raqadul haysayni. mu tuddee ko nag raqadul haysayni. fi hayaati daarayni. fi hayaati daarayni. naat ak ñaari dund ñi. naat ak ñaari dund ñi. ci dundu ñaari kër yi. ci dundu ñaari kër yi. maanaam ñaan. maanaam liñ ciy ñaan. bu nangoo. bu nangoo. dundam àdduna bi. dundam àdduna bi. day neex. day neex. bu àllaaxira bi itam neex. bu àllaaxira bi itam neex. moo tax ñu tuddee ko tur woowu. moo tax ñu tuddee ko tur woowu. du dama jékki rek xalaat def ko. du dafa jékki rek xalaat def ko. Aaroona Toob la fi àndatee. bay Aaroona Toob la fi àndatee. ñu dem Medina Bambali. ñu dem Medina Bambali. xanaa diitam lam fa ne. xanaa diitam lam fa ne. xëy na lam fa gis ci wàllu teraangaay àdduna xam xëy na lam fa gis ci wàllu teraangaay àdduna ak wàllu diina ak wàllu diina mu mel ni xëy na xeebu ko mu mel ni xëy na xeebut ko fa tabarakallahu fa tabarakallahu xasanul xaalixiina waaye yal na ko yàlla xeeb moom dolli waaye yal na ko yàlla xeeb moom dolli mu ne yow de inaawul mutaaridiin. mu ne ko yow de inaawul mutaaridiina. fa mel ni fii nga ko doon wéyal. fa mel ni fii nga ko doon wéyal. paas mooy doon na nga leen defal seen loo bopp. paas moom it na nga leen defal seen loo bopp. doon jéem ba wax ci bayit yi. ci la doon jéem ba wax ci bayit yi. loolu rek moo ko sabab nag. mu ne loolu rek moo ko sabab nag. fajal lanaa yaa rabbanaa li faasinaa kullal munaa fillaahi aw hayaatinaa. maanaam ki jarul ci firi bar lay ñaan. mu ne mooy sama borom ñu ngi lay ñaan. nga defal suñu faas gi. nga defal suñu faas gi. lépp loo xam ne ñu koy mébét. lépp loo xam ne ñu ngi koy mébét. ci seen diina. wala seen àdduna. kon fillaayu jooju. kon fillaayu jooju. fi diini moo fi dëkkoon. fi diini moo fi dëkkoon. waaye xasida bi dama ko jàng ba mu jeex. waaye dafa jàng xasida bi ba mu jeex. baatab allahu newut ci. baatab allahu newut ci. fi mu doon war a defee nag fillaayu. fi mu doon war a defee nag fillaayu. fi diini fi diini fi mu doon war a defee fi diini. ndax diine ji gannaaw dinaa yàlla lay dox. ndax diine ji gannaaw dinaa yàlla lay dox. mu far fi def fillaayu. mu far fi def fillaayu. moo def fillaayu jooju. moo def fillaayu jooju. moo tax mënuñu nettali ci làmmiñu borom. moo tax mënuñu nettali ci làmmiñu borom. baatab allahu boobu rek moo ci nekk. wa ahlihaa faj'alhum muwaafiqiin wal muhibbiina rabbahum wal muttaqiin. ñu ngi lay ñaan itam ñooñ faas. ñu ngi lay ñaan ñaan itam ñooñ ñooñ faas. nga def leen ñu dëppoo. nga def leen ñu dëppoo. te itam. te itam. nga def leen ñoo xam ne dañuy sopp seen borom. nga def leen ñii ñoo xam ne dañuy sopp seen borom. nga def leen itam ñoo xam ne. nga def leen itam ñii ñoo xam ne. dañuy ragal yàlla. dañuy ragal yàlla. Mm. xamir bi xaa enliha bil basmali nawir xolooba enliha bil haylali ñu ngi lay ñaan yow suñu borom pàkkam yi pàkkam yi nga dundalee ko nga dundalee ko ci barke bismillahi rahmaani ci barke bismillahi rahmaani rahim ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan seen xol yi seen xol yi nga dundalee ko nga dundalee ko ci barke bi laa ilaha illallah ci barke bi laa ilaha illallah nga def ci xol yi laa ilaha maanaam laa ilaha illallah. nga def ci xol yi maanaam laa ilaha illallah. xam ne laa ilaha illallah. xam ne laa ilaha illallah. bu ko seen làmmiñ yi da wax. bu ko seen làmmiñ yi da wax. seen xol yaa ngi ko takk. seen xol yaa ngi ko takk. bu ko seen làmmiñ yi du wax it. bu ko seen làmmiñ yi du wax it. seen xol yaa ngi ko takk. seen xol yaa ngi ko takk. xam ne tawhid day nekk ci seen xol yi. xam ne tawhid moom day nekk ci seen xol yi. ndax wax ak làmmiñ gi. ndax wax ak làmmiñ gi. li muy jëriñ. li muy jëriñ. mooy mu ne ci xol bi rek. mooy mu ne ci xol bi rek. loolu la loolu la wax ak làmmiñ gi. loolu la wax ak làmmiñ gi da jëriñ nit di nekk naan laa ilaha illallah. nit di nekk naan laa ilaha illallah. wala lépp loo xam ne mu ngi koy wax. wala lépp loo xam ne mu ngi koy wax. ci xeeti siigar. ci xeeti siigar. la mooy jëriñ. la mooy jëriñ. moo de moo de moom lañ jublu. moo de loolu moom lañ jublu. waaw laa ilaha illallah. laa ilaha illallah. li mooy jëriñ. li mooy jëriñ. mooy nit ki. mooy nit ki. xolam bi. xolam bi. tawhid fees ci. tawhid fees ci. waaw loolu nag nekk da wax laa ilaha illaahu loolu nag nekk da wax laa ilaha illallaahu dana tax mu ne ca dana tax mu ne ca dana ca ne it dana ca ne it te sax nit ki waxut laa waxut laa ilaha illallaahu te sax nit ki waxut laa ilaha illallaahu moo tax moo tax. Eh, ñuy wax ne bisikirillaahi. ñuy wax ne bisikirillaahi. tasdaadu sunoobu. tasdaadu sunoobu. waaw sikrullaahi. sikrullaahi. day day yokk bàkkaar. day yokk bàkkaar. ndax yàlla kenn waru koy fàtte. ndax yàlla kenn waru koy fàtte. ba da ko fàttaliku. ba da ko fàttaliku. moo tax ma ne Amir Baqa Amir Amir Qulub Aliha bil Haylali seen xol xol seen ay ñoñam. moo tax mu ne Amir Qulub Aliha bil Haylali xol yi ay ñoñam. yal na nga ko dundalee. yal na nga ko dundalee. ci ci. barkeb laa ilaha illallah. ci barkeb laa ilaha illallah. waaye nga dundalee ko. waaye nga dundalee ko. ci maanaam laa ilaha illallah. ci maanaam laa ilaha illallah. xam ne xol yi day fees dell ci maanaam laa ilaha illallah. xam ne xol yi day fees dell ci maanaam laa ilaha illallah. buy siikar. buy siikar. mu ngi ci mu ngi ci. bu nekkul du siikar it. bu nekkul du siikar it. mu mu ngi wa hakaza fafan lana fii bambali wa jaamalin bi xawqalin wa xasbali moom dafa waxoon naa ko def naa defal euh, faas moom dafa waxoon ne mu defal faas man nag suñu ma defal faas moom nag sañ defal faas bàyyi bàyyi bàyyi jaam bàyyi jaamal bàyyi jaamal suñu ma defal faas sañ da defal faas ak jaamal ak jaamal bàyyi bambali bàyyi bambali waaye it waaye it suñu ma defal faas sañu da defal faas ak jaamal ak jaamal ak bambali ak bambali bàyyi ñi nga xam ne bàyyi ñi nga xam ne ci barab yooyu lañ dëkk ci barab yooyu lañ dëkk waaye sañc nañ feneen waaye sañc nañ feneen ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp ma leen defal sañu leen a defal bàyyi ñi nga xam ne bàyyi ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen soxla dañoo bàyyi seen i soxla da leen siyaare si da leen siyaare si sañu maa defal ñun ñëpp sañu defal ñu leen ñëpp bàyyi ñi nga xam ne bàyyi ñi nga xam ne buñ de buñ dëkkut ak ñoom itam buñ dëkkut ak ñoom itam sopp nañ leen sopp nañ leen moo tax mu dugal ci ñëpp moo tax mu dugal ci ñëpp moo tax ma ne naka noonu na nga ko def lii ma ñaan ci moo tax mu ne lii ma ñaan fii ci faas ci faas te mooy dëppoo. te mooy dëppoo. ak ragal yàlla. ak ragal yàlla. ak pàcc yi dund pàcc yi dund. ak pàcc yi dund. ci barke bismillahi rahmaani. ci barke bismillahi rahmaani rahim. xol yi dund. xol yi leer. xol yi leer. xol yi leer. ci barke laa ilaha illallah. ci barke laa ilaha illallah. ak leeree laa ilaha illallah. ak leeree laa ilaha illallah. yal na nga ko def itam ci bàmbali. yal na nga ko def itam ci bàmbali. yal na nga ko def itam ci jaamal. yal na nga ko def itam ci jaamal. waaw xale mu ci barkeb laa hawla wala quwwata ci barkeb laa hawla wala quwwata ak ci barkeb hasbunallah ak ci barkeb hasbunallah wa ni'mal wakil mooy bi haw xalin wa hasbalin mooy bi haw xalin wa hasbalin hmm. waxtar lanal jiiraana qabla daari fii kulli buqaatin wa kulli jaari ñu ngi lay ñaan nag ñu ngi lay ñaan nag nga sàkk sàkkal ñu ay dëkkandoor nga sàkkal ñu ay dëkkandoor hmm. jëkkat jëkkat balaa ñoo dëkk ñun. jëkkat balaa ñoo dëkk ñun. loolu daal ñu la koy ñaan. loolu daal ñu la koy ñaan. nga sàkkal ñu ay dëkkandoor. nga sàkkal ñu ay dëkkandoor. balaa ñoo dëkk ak ñun. balaa ñoo dëkk ak ñun. loolu nag. loolu nag nga sàkkal eh, defal ñu ko. nga defal ñu ko. ci pàkk bu ne. ci pàkk bu ne. nga tànnal ko dëkkandoor. nga tànnal ko dëkkandoor. defal ñu ko. defal ñu ko. dëkkandoor bu ne. dëkkandoor bu ne. mu dëkku tànn. mu dëkku tànn. pàkk bu ne. pàkk bu ne. nga tànnal ko dëkkandoor. nga tànnal ko dëkkandoor. dëkkandoor bu ne. dëkkandoor bu ne. nga def ko muy ku tànn. nga def ko muy ku tànn. Hmm. waj'alhum min ahli hubbil Mustafa salla alayhi rabbuna wa sarrafa. yal na nga leen def. yal na nga leen def. ñu bokk ci ñu sopp Mustafa. ñu bokk ci ñu sopp Mustafa. sallallahu alayhi wa sallam. sëñ bu mu ne. sëñ bu mu ne. wuy wii rek. doy na ci ngëneel. doy na ci ngëneel. waaw ñaanal ñaanal gi ñu leen ñaanal. ñaanal gi ñu leen ñaanal. ñu bokk ci ñu sopp Mustafa. ñu bokk ci ñu sopp Mustafa. sëñ bu mu ne loolu rek doy na. waj'alhu min ahli hubbi sayxina ahmadina mumiddina qudwatina yal na leen def ñu bokk ci ñu sopp suñu suñu sëriñ yal na leen def ñu bokk ci ñu sopp suñu sëriñ ba te mooy suñu royteef bi te mooy ki ñuy tëbb te mooy ki ñuy tëbb mm. waj'alhu min ahli hubbi sunnati wa ahli wafrin mahrabal himmati yal na leen def itam yal na leen def itam ñu bokk ci ñi nga xam ne ñu bokk ci ñi nga xam ne yooyu yëpp nag yooyu yëpp dëkk ñu waxoon ci la bokk mu ne loolu yëpp nag dëkk yi ñu waxoon ci la bokk de bambali te mooy bambali ak faas ak jaamal bokk gi ci ñeneen ñi bokk bokk gi ci ñeneen ñi bokk mu ngay dikk mu dikk na nga leen boole itam na nga leen boole itam ñi nga xam ne dañoo sopp sunna ñii ñu nga xam ne dañoo sopp sunna waaye it waaye it nga def leen ñii ñu xoomal nga def leen ñii ñu xoomal waaye itam nag waaye itam nag nga def leen ñii borom hitti yu nga def leen ñii borom hitti yu yëkkateku borom hitti yu yëkkateku mooy borom hitti yu yëkkateku mooy mooy ko xam ne xelam mooy ko xam ne xelam yàlla rek moo ci ne yàlla rek moo ci ne xemam téefam xemam téefam yàllaa jaay ne yàllaa jaay ne bu xoomalee it bu xoomalee it yàlla la koy xawale yàlla la koy xawale hmm. warzuq lahum sihatal abdaani wa sihatal qulubi bil harfaani. maa ngi ñaan nga may leen. maa ngi ñaan nga may leen. wér gi yaram. wér gi yaram. ak itam seen xol yi. ak itam seen xol yi. nga wétalee ko. nga wétalee ko. ci xam la yow yàlla. ci xam la yow yàlla. nga def seen xol yi ñu xam la. nga def seen xol yi ñu xam la. dala bàyyi xel. dala bàyyi xel. dala fàttaliku. dala fàttaliku. dala ragal. dala ragal. dala sopp. dala sopp. dala màggal. dala màggal. dala rus. dala rus. dala topp. dala jam dala jaamu. dala jaamu. jamil lahum wa kulli aatin daarahu wa kulli man jaxalahu masaarahu yàlla nga leen rafetal seen i kër yàlla nga leen rafetal seen i kër kër yi jot a taxaw kër yi a taxaw na ko rafetal na ko rafetal ak képp ku dikk ak képp ku dikk sanc si sanc si këtam këtam na ko rafetal na ko rafetal rafetal gi nag rafetal gi nag kulli maanaal jamaal bi kulli maanaal jam li kulli maanaal jamaal bi kulli maanaal jamaal maanaam ci xeeti rafetal yëpp maanaam ci xeeti rafetal yëpp nag laa wax waxuma peinture bu xam ne rafet na hisan mahnan wa hisan moo xam maanaa la moo xam maanaa la moo xam li ñuy gis la moo li ñuy gis la yëpp leen leen yal nañ leen ko rafetal ko rafetalal wa kullu man jaxalawu masaaru ak képp koo xam ne wa kullu man jaxalawu masaaru ak képp koo xam ne daf dafa ñëw da leen siyaare si liñ ñaan nii yëpp liñ ñaan nii yëpp ci ko boole ci ko boole hmm. wajhal lana ma fi ina ina wa ma fi kulli matlabin min alqawmi sama ñu ngi lay ñaan itam ñu ngi lay ñaan itam lépp lu nekk ci inaawul mutaari lépp lu nekk ci inaawul mutaari nga defal leen ko nga defal leen ko ak lépp loo xam ne ak lépp loo xam ne nit yàlla yi ñaan lañ la yàlla yi ñaan lañ la ko nga defal leen nga defal leen ko mm. wajalhum min ahli sukri nihami wa najjihim min arrada nga def leen ci boole leen ci nga xam ne ñu ngi lay ñaan nga boole leen ci ñi nga xam ne da nga leen a xéwal waxtu bu ne de da leen a xéwal waxtu bu ne de waaye da nga leen yànk walit nga leen yànk walit ko sant ñi da ko sant wa najjihim min arrada wa niqami ñu ngi lay ñaan nga musal leen ñu ngi lay ñaan nga musal leen ci ci xalaku ak xeeti mbugal yi wa najjihim min saariqin wa faasiqi wa najjihim min sarri kulli lay ñaan nga musal leen. ci saariq. ak faasiq ak faasiq. mooy sàcc. mooy sàcc. ak ku bon. ak ku bon. ak wa naafis. wa najjihim min sarri kulli qaasiqi. ñu ngi lay ñaan itam nga musal leen ci xayu bépp guddi gu lëndëm. ñu ngi lay ñaan nga musal leen ci xayu bépp guddi gu lëndëm. Mm. wa naafisin wa xaaqidin wa saahiri fi yawmina wa xaddina wa daabiri. ñu ngi lay ñaan nga musal leen ci képp koo xam ne day fas. ñu ngi lay ñaan mooy jéebeerkat ak kuy fas. ak kuy fas. kuy tëfli. kuy tëfli. ak kuy fas. ak kuy fas. ak kuy jébeer. ak kuy jébeer. ñu ngi lay ñaan na nga musal ñu ci. ñu ngi lay ñaan na nga musal ñu ci. tey tey jii. tey tey jii. loolu yëpp yal nañ ci mucc. loolu yëpp yal nañ ci mucc. musal ñu ci itam démb. musal ñu ci itam démb. mooy li ci nit defoon. mooy li ci nit defoon. ci yooyu. ci yooyu. nga musal ñu ci. nga musal ñu ci. ba jeex itam jeex. ba jeex itam jeex. yàqam jeex. yàqam jeex. dara dootu ci mën a am. dara dootu ci mën a am. musal ñu ci itam ëllëg. musal ñu ci itam ëllëg. ba xam ne yooyu. ba xam ne yooyu. kenn duñu ko mën a def. kenn duñu ko mën a def. bu ko defee. bu ko defee. du jëriñ dara. du jëriñ dara. jëriñ moom dara du ko jëriñ moom dara. Mm. wa najjinaa min kulli maa waswaasi fi bambalin wa jaamalin wa faasi. ñu ngi lay ñaan nga musal ci mboolem xeeti jaxajaxal yi. ñu ngi lay ñaan nga musal ci mboolem xeeti jaxajaxal yi. yi nga xam ne seytaane da koy jaxajaxal. yi nga xam ne seytaane da koy jaxajaxal. ci bambali. ci bambali. ak faas ak jaamal ak jaamal. nga musal ñu ci. nga musal ñu ci. jaxajaxale seytaane nag. jaxajaxale seytaane nag. ci ruuxul bayaan. ci ruuxul bayaan. am na juróom-benni anam. am na juróom-benn juróom-benni martaba la. juróom-benni martaba la. mataw bu njëkk bi mataw bu njëkk bi mooy seytaane mooy seytaane lu may njëkk jéem ci nit lu may njëkk jéem ci nit mooy bokkaale mooy mu bokkaale ak kéefër ak kéefër loolu bu ko xasee am ci nit loolu bu ko xasee am ci nit eh, dootul binneeti dootul binneeti kooku jaaxalatu ko kooku moom jaaxalatu ko àggal na ci àggal na ci su ko mën daa am ci moom su ko mën daa am ci moom mu fexe ci moom mu fexe ci moom muy def bàkkaat yu mag muy def bàkkaat yu mag su ko ci mën daa am su ko ci mën daa am mooy mata boobu mooy mata su ko su ko mën daa am ci su mën daa am ci moom kéefër ak ak ak bokkaale. su mën daa am ci moom kéefër ak bokkaale. mu mu xiir ko ci biddaa. mu xiir ko ci biddaa. xam ne du nekk ci sunna. xam ne du nekk ci sunna. lu may yëngatu lu mu mën a dox. lu may yëngatu lu mu mën a dox. ak lu mu ko mën a teg. ak lu mu ko mën a teg. biddaa la rek du sunna. biddaa la rek du sunna. mu ne ndax loolu. mu ne ndax loolu. borom du tuub. borom du tuub. nekkul ci lu baax te du tuub. nekkul ci lu baax te du tuub. foog na ne mu ngay def dara. foog na ne mu ngay def dara. te li may def awut yoon. te li may def awut yoon. loolu itam bu fekkee seytaane. loolu itam bu fekkee seytaane. amut ci nit ki kii kéeféer loolu moo ko gënal loolu moo ko gënal mu ne ci biddaa rek mu ne ci biddaa rek mooy martabaam ñaareel bi mooy martabaam ñaareel bi martabaam ñetteel bi martabaam ñetteel bi mooy mooy mu ngi ko xiir ci bàkkaar yi mu ngi ko xiir ci bàkkaar yu bàkkaar yu mag bàkkaar yu mag bu martaba bu bu fekkee man ci moom loolu bu fekkee ci man ci moom loolu martabaam ñeenteel martabaam ñeenteel mooy mu ngi ko xiir ci bàkkaar yu ndaw mooy mu ngi xiir ci bàkkaar yu ndaw moo xam ne bu bu yàggee xam ne bu yàggee soppeeku bàkkaar bu mag soppeeku bàkkaar bu mag ñeenteel boobu su ko mënul ci moom ñeenteel boobu su ko mënul ci moom bu juróomeel bi bu juróomeel bi. mooy lu xam ne dagan na. mooy lu ne dagan na. amul pay. amul pay amul bugal amul bugal. waaye. waaye. bu ci yàggee. bu ci yàggee. dana ko faatalal lu xam ne am na pay. dana ko faatalal lu xam ne am na pay. ci misaal tey. ci misaal tey. da seetaan ne. da seetaan lu xam ne. xañ na seetaan gi xaayut. xañ xañ na seetaan gi xaayut de. waaye mu laa yàqal ci kanam nag. waaye ne boo ko ne boo ne. da déglu loo xam ne. xañ na déglu gi xaayut. xañ na déglu gi la ci kanam. mu faatalal la ci amal njëriñ. loola mooy mbugal ma loola mooy mbugal ma. amul tiyaabo amul tiyaabo amul mbugal amul mbugal waaye nag la ci da mbugal waaye nag la ci da mbugal mu faatal la la lu am njëriñ mu faat mooy mu faatal bi martabaab juróom-benneel martabaab juróom-benneel ci jaax jaaxle ci jaax jaaxle yi nga xam ne seytaane dana ko def nit yi nga xam ne seytaane dana ko def nit mooy mooy dox diggante mag lëggan dox diggante mag lëggan xiir ko ci lañ gën ko ci lañ gën yaar yëpp na yaar yëpp baax na waaye lalee gën nag waaye lalee ba waaye mu fexe ba gannaaw yi yëpp mënu ci moom dara ba foofu ba foofu li ci dem li gën moom du ci dem loolu juróom martaba yooyu juróom martaba yooyu ruuxul bayaan mu ne ruuxul bayaan mu ne mooy seytaane xam nga loolu nag xam na na ci xam ko saakaa moo ci a moo ci mën a qul a'uuzu bi rabbin naasi malikin naasi malikin naasi ñoom ñett ñii. ñoom ñett ñii. waxal ne yaa ngi muslu ci ñoom. waxal ne yaa ngi muslu ci ñoom. min sarril waswaasi. min sarril waswaasi. alqannaasi. alqannaasi. ki nga xam ne day jaax jaaxle. ki nga xam ne day jax jaaxle. da dugg ci xolu doomu aadama. da dugg ci xolu doomu aadama. da ko jax jaaxal. da ko jax jaaxal. waaye bu doomu aadama fàttali ko yàlla rek. waaye bu doomu aadama fàttali ko yàlla rek. mu dellu gannaaw mu dellu gannaaw. mooy xannaasi. mooy xannaasi. waaw ñi ma wut tudd yàlla. ñi ma wut tudd yàlla. ñi ma wut fàttaliku yàlla. ñi ma wut fàttaliku yàlla. allati yuwaswisu. allati yuwaswisu. ki nga xam ne dafay jaaxal jaaxale. ki nga xam ne dafay jaaxal jaaxale. fii sudóori naasi. fii sudóori naasi. ci xol yi xol yi nit ñi. ci xol yi nit daalika nag minal jinnati dana dikk nag minal jinnati wannaasi wannaasi dana nekk jinne dana nekk jinne dana nekk nit dana nekk nit ñoo ñëpp ñoo ñëpp jaa jaaxle yooyu jaa jaaxle yooyu danañ ko da def danañ ko danañ ko da def loolu nag yàlla moo ko mën a xàmme loolu nag yàlla moo ko mën a xàmme moo ci mën a musal nit te moo ci mën a musal nit moo tax ñu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko moo tax ñu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne ko na wax ne maa ngay muslu na na ko na nga wax ne maa ngay muslu bi rabbi naasi bi rabbi naasi maliki naasi maliki naasi ilaahi naasi ilaahi naasi muslu ci loolu muslu ci loolu dégg nga loolu jëm ci wàllu diine musiba mu jëm ci wàllu diine moo ëpp doole gis nga musiba mu jëm ci wàllu diine moo ëpp doole mu jëm ci wàllu jëmm mu jëm ci wàllu jëmm xam ne jëmm rek lay lor xam ne jëmm rek lay lor la nga xam ne jëmm rek lay lor la nga xam ne jëmm rek lay lor benn rek benn tur yàlla rek lañ tudd benn tur yàlla rek lañ tudd indi ci lu man ñeent indi ci lu man ñeent mooy xolons bërbil falaq mooy xolons bërbil falaqi min sëri maa xalaqa min sëri maa xalaqa wa min sëri xaasiqin isaa waqaba wa min sëri xaasiqin isaa waqaba wa min sëri nafasaati fil uqad wa min sëri nafasaati fil uqad wa min sëri haasidin isaa hasada jëmm lay gën a lor. yooyu yëpp ci jëmm lay gën a lor. ñu te yooyu yëpp ñu boole leen. te ci benn. musul ci benn. mooy bi falax. mooy béréb bi falax. léegi nag jëm ci wàllu diina. léegi nag jëm ci wàllu diina. tey lenn. tey lenn. ñu rëbb ñu indi rëbb. ñu indi rëbb. maliku maliku. ilaahu ilaahu. maliku naasi. naasi. maliki naasi. maliki naasi. ñetti tudd yàlla. ñetti tudd yàlla. da muslu ci lenn. da muslu ci lenn. lële wenn tudd yàlla. lële ci ñeent. seetlu ngeen ko. <coughs> moo tax loolu xam nga yàlla rek moo ci mën a musal. xam nga loolu yàlla rek moo ci mën a musal nit. moo tax wa najjinaa min kulli maa waswaasi fi bambali nga jaamatin wa paas yàlla ñu musal. moo tax yàlla ñu musal. waaw ci lépp loo xam ne jaax-jaax la. ci lépp loo xam ne jaax-jaax la. ak ba mu ko bindee woy ba mu ko bindee rek la ko moom ko bindee rek la ko mokkal. mu ne Habib woy ba mu ko bindee rek la ko mokkal. waaw dama ne ba mu ko bindee rek laa ko mokkal. dama ne ko ba mu ko bindee rek laa ko mokkal. moom laa ko doon bind lool. moom la ko doon bind lool. Mm-hmm. وهكذا في كل دور أهلها في كل بلدة وأهل ودها وهكذا نكن لب لما نانون نك وهكذا نكن لب لما نانون نك في كل دور أهلها في كل دور أهلها أكدي نيون نيون ما وخون أكدي نيون نيون ما وخون وجامل وجام موي جامل وافاس وبامبلي وبامبلي سين كبي سين كبي في كل بلدة نك في كل بلدة نك فوج مانا نك فوج مانا نك waaye ci waaye ci lañ bokk waaye ci lañ bokk wa ahli wuddiha wa ahli wuddiha ak ñi nga xam ne bokkuñ ci ñoom ak ñi nga xam ne bokkuñ ci ñoom sax sopp nañ leen waaye sopp nañ leen ñaan gi yëpp dugal nañ ñaan gi yëpp dugal nañ leen ci moom Faas la ma waxoon moom Faas la ko waxoon waaye man sañ maa ñaanal Faas bàyyi ñëpp waaye moom sañ da ñaanal Faas bàyyi ñëpp waaw amina ya rabbi stajib du'aa'i wasma ilahi kullama nidaa'i bi maa di fadlika wa maa di rahma wa maa di ikraamin wa maa di min lii ñu ngi koy ñaan nag ñu ngi koy ñaan nag ci sa ngëneel lii nag ñu ngi koy ñaan ci sa ngëneel lu sell li lu sell li muy ngëneel lu xam ne muy ngëneel lu xam ne sa baaxee rek la sa baaxee rek la du suñ jëf du suñ jëf du suñ xaskan du suñ xaskan du suñ melo du suñ melo du suñ ay xat du suñ ay xat du du suñ du suñ lenn daal du suñ lenn daal sa mbaax rek mooy def yow daal sa mbaax rek mooy def doo seet ci ñun dara doo seet ci ñun dara waaw ndax bu ñun buñ ci buñ ci seedee ci ñun rek ndax ñun buñ seedee ci ñun rek lu ko jëmal fay xam si lu ko jëmal fay xam si fadli loolu mooy Maodo fadli ak Maodo rahmati ak Maodo rahmati ak Maodo minnati ak Maodo minnati mooy xewal rek xewal mooy mooy baax xewal xewal rek baax rek lañ lay ñaan baax rek lañ lay ñaan ci mbaax nga baaxee ñu rek nga baaxee ñu rek lañuy ñaan lañuy ñaan mm. sala ilahuna ala almuxtaari wa alihi wa sahbihi al axyaari mm, wa taabeen hadiyum min badihim wa taabeen abadan li hadiyim mm. kuñ ko firilu dina am loo xam ne doo ko ci seetlu mu ne kuñ ko firilu dina am yoo xam ne doo ko ci seetlu ndax bu ñu mel faas rek la ñuy ñaanal ndax fay mel ni faas rek la ñuy ñaanal déedéet sañu ma ko déedéet ndax loolu moom sañu ko <laughs>